ñaareelu xaaj bi ci juróomi xaaj yi waa Israyil daldi ragal ne Musaa dootul dellusi ñu wax Aarona mu defaral leen ab yàlla bu leen jiite noonu Aarona jël seeni jaaroy wurus yépp ruyal ko defar ci ab sellu wurus nit ñi tàmbalee màggal sellu wurus wi ak di ko saraxel yàlla daldi mer lool yàlla wax Musaa ne dina sànq waa Israyil ndax seen bàkkaar boobu waaye musa tinu yàlla ngir mu baal leen looloo tax ba yàlla sànkul waa Israyil yépp bi musaa wàccee tund wi fekk nit ñi di màggal seelu wurus wi mu mer lool mu sànni ñaari àlluwa wi ci suuf ñu toj musaa lakk seelu wurus wi wol ko ba mu mokk def ko ci ndox jox leen ko ñu naan noonu musa sant ñi gëmoon yàlla te waruñu ñu jël seeni jaasi te rey ñi bañ a topp yàlla bés boobu rey nañu lu tollook ñetti junniy góor léegi ma laaj leen ñaar lu tax nit ñi wax aarona mu defaral leen ab yàlla bu leen jiite ndaxte nit ñi gëmatuñu woon yàlla bi musaa toogee ñeent fukki fan ci kaw tund wi ci la nit ñi tàmbalee ragal ne yàlla wàcc na leen noonu ñu bëgg a jaamu leneen ndaxte xamoon nañu ne soxla nañu ndimbal ñett nit ñi lu ñuy def bu ñu nekkee ci njàqare ni ki gu tas wala feebar bu ñu amee ay rëq-rëq dañuy seeti yeneen yeneeni nit dañuy seeti ay sëriñ walla ay jibar ngir ñu wax leen fu seeni rëq-rëq jóge te ñu dimbali leen duñu dem ci yàlla